mooy Bassirou Diomaye Faye génnee. Hmm? waaw waaw tant que génnul moom du ma ko tekki. boobu tam révélation la révélation fii su ma Macky maa ngi lijjanti audience ak moom Macky Sall su ma su ma recevoir audience sax bracelet bi laay yóbbu bracelet bi moom mu bii tant que Bassirou Diomaye Faye génnul ma takk sama bracelet fu mu fu ma nit gis moom di nga gis sama bracelet bii na Bassirou Diomaye Faye génn Abdou Karim Gueye xuru génn Cheikh Omar Diagne génn. Babacar Ndiaye génn ma tekki sama bracelet waaw maas ak nit ñi. sinon sinon bracelet bi sa bracelet. mi ngi nii waaw sa bracelet. na Abdou Karim Gueye génn na Bassirou Diomaye génn na Cheikh Omar Diagne génn. na kan yaay genn ma tek bracelet bi. d'accord wa ila chronique nga de chronique. ah, ah chronique na tay xalé dag yi ko nak ah, ko ma Ibrahima daggate leen lii ngeen tassare ko. waaw tassare fu ni nii Macky Sall ma ngi audience président Macky Sall suma dem ni la bracelet bi lay bracelet bi lay yobale to bracelet mom mom mom du fi joge mom et puis Cheikh bar da cey ñaan. Cheikh bar da da ñaan ah, man xam nga man nak duma ragal. Hmm. xam nga may mi li def ni ragal du ko def. mais li ma def nii déjà. takk mi risque la def nii bracelet bi ma takk nii. vraiment man mais ñoom dañoo def ma télé bu mag ba. bi ko gisee nii maa ngi nii bracelet. bi mu ko gisee dama mm. nii parce que ñu si bindoon sonko sax xoolal yàlla def xale bi ñëw da bind ñu si sonko ndax affaire bi du yëf si sonko du sonko. Pastef la Pastef la c'est mm. waaw ah, esprit bu voilà voilà euh, euh, mon bracelet s'enlèvera le jour où Bassirou Diomaye Faye l'air de la liberté Nous mm-hmm. avons ci Abdou Karim Gueye mm-hmm. Taxi ci Ndiaye jean Omar Diagne je m'en fous de ça <laughs> comme comme comme comme les cinq doigts de la main kenn génn Cheikh Baar il reste quatre bu quatre yooyu génn la reste. mu sell mi nag. Euh, bu ko defee ñu commencé ci émission bi.